la ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ci kenn ki nga xam ne ci ñi gaañu ci la bokk euh, di doom ci paa bi jubar euh, ko laaj di sët ci paa bi sax astafurla sëtu paa bi la moom tam gis nga nekkoon xaritu paa bi nag mais yëf yi da cay laal moom tam euh, soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Ndeye Fatou. Ndeye Fatou yow moom laal nga ci de nu mu demee noonu. ah yàlla moo ma si boole rek muy lakk nit di lakk sama tàntu lakkaale ma léegi ak li ma wax sa yaay yëpp ak li mu wax lépp yéen da ngeen a fas yéene bàyyi waxtaan seen biir mu sedd wala da ngeen di bëgg a dem ba fu yoon fu nekk wala. ah comme man moom maa si gën a ndaw te sët la am na ay kilifa bàyyi naa ko si seen loxo rek ñoom ñu xool. Hmm. daañu rek moo ci lakk. non sama ginnaaw dafa lakk waaw. est-ce que mën nañu gis ginnaaw gi après dinaa leen ko wan. soxna si maa ngi lay ñu la. Oumy ci gaañu gaañu yi nga bokk. ci laa bokk. laaj naa ko sànq euh, ndey Fatou laaj ko tam Khady euh, léegi lan ngeen fas yéene da ngeen a fas yéene waxtaan seen biir pour bàyyi mu sedd wala da ngeen bëgg a dem ba yoon ba xam lu muy def. dañoo bëgg a waxtaan suñu biir ñu dem ba yoon parce que affaire bi dafa metti waaw ñoon def liggéeyam daal. sa loxo moo ci lakk. sama loxo ak sama digg yi naaw. asalaamaaleykum am nañu tey Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm ak tey nag ñu ngi fii ci Gueule Tapée euh, li ñu nag mi kaa bu doy waar ci biir lépp nag du ko développé damay bàyyi rek après ñi seet si ñu développé ko mais daal doy na waar euh, kër la bu am coow seytaane dugg seen biir ba am ay soodante ak ay xëppante ndox mu tàng loolu nag ñu yow tey pour laaj leen nan la demee exact ak lan mooy indi coow li. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. di la bi nan la. di la la sant man euh, Khady Ndoye laa tudd. ñu may woowee Khady Gueye euh, kenn laa ci doom yi maa ci gën a tuuti sax presque booy seet ndax loolu laa mën a wax ndax euh, ñi ma mag fuuf ñi ngi fi dañu sëyi nekk seeni kër man yàlla moom mu fi indiwaat ndax dama amoon jëkkër tàggoo ñëwaat ci kër sama papa. coow leen fii nemmeeku ne dafa am fii ci biir kër gi nan la demee yow mi nga xam ne ci kër gi nga dëkk di doom doom ci paa bi. coow li de fi la ma fekk wax dëgg yàlla sama soxna papa la teg nañ ko fiñ ko war a teg mais moom dafa mel ni nanguwul daal lépp la bëgg a gérer boppam te daanaka sama papa bu lu mu wax mu ne waaw ndax soxnaam la lu mu tuuti tuuti bu waxee mu ne mooy seen kilifa ndax léegi sama soxna la ñu nangul ko nag waaye ci kaw nangul boobu soxna si dafa bëgg a yéeg suñu kaw bopp rek lu ko neex lay def dem na si sax ba sama papa mi nga xam ne bañaluñu woon dara wax dëgg yàlla daf ñoo yor yiir ñu ba sunu yaay dëddoo la lii commencé ndax euh, indi na ko si kër gi xale la elle est née en 74 ans man naa ko mag fuuf yaa ngi leen a ngi dégg ma ne maa gën a ndaw am na ñu ko gën a mag fuuf moom mën nañ koo sax jur sama taawi papa mën na jur sama soxna papa daanaka ñu nangul ko ndax loolu la dépense yi mu nangu lépp mu nangu ñu jox ko mais ci kaw loolu buñ ko nee jox ñu dépense sax balaa mu ñu koy jox dañuy taxaw di xaar dina tëdd ba heure bu ko neexee ñuy xaar te ñun xamuñu woon loolu ñun li ñu xamoon mooy sama di ñu jox dépense bu doy saaku ceeb bi day tege duul siwa duuliñ bi tege bu ñu xëyee jël suñu ration dem duggi ku nekk dugg sa deux jours teg moom dañ ko ne woon toogal rek nga toppatoo suma papa ñun dinañ gérer lépp mais moom dafa dem ba ci biir moom daal lépp daf ko bëgg a mais dugg nañ ba ci biir biir day dugg di ñu jox ay ndugg par benn benn te ñun xamuñu yooyu wax dëgg yàlla lépp dañuy accepté ndax sama papa plate la ñuy indi mu ñu defal ndugg lu ñu waroon am ñaar ñu jox ñu benn loolu yëpp dañ ko accepté ndax sama papa ndax bëgguñu ko indil benn problème parce que mag la lu ko neexoon rek surtout man mii nag bi mu ko indee fii ci kër gi dama ko ne bi ñu ko muuree mu dugg ci kër gi dama ko ne man bëgguma dara man li ma bëgg rek mooy nga géreel ma sama papa li ci des yëpp dinañ ko gérer ñuy togg di ko yàqal di ko indil mais moom franchement gisul lu baax liñ ko doon defal ndax ñun xamuñu xamuñu loolu buñ doon coow sax ñun suñu biir lu luñ daan coow mais bii façon atte kenn mësuñu ko atte bu ñu paree àndaat mais lii c'est trop c'est trop moom bëggul jàmm liñ ko sant yëpp defa ko bu daan jàppante xale yi damay dugg si néegam ne ko yow da nga bëgg a sonal sama papa parce que yow boo nekkul xale yi benn du dem ba si ki mu lakk nii tey mooy sama caatu yaay ñett la lakk sax ci kaw li indi loolu yëpp jour de vendredi pour ma tënk wax ji ndax bu ma bëggee wax lépp day bari vendredi jànqam la moonte suñu kaw ñun amatuñu janq sama papa joxatuñu dépense sama papa génn nañu waañ bi dugal ko moom janqam di ko toggal suñuy bool mi ngi nii ci biti ci ëtt bi ci ëtt bi la ñuy toggee fa la ñuy lekke te ñun xamuñu woon loolu daanaka def ñu bëgg a mbugal ñu lépp ñu kaw ñu nangu ko ci kaw rek respecte sama papa mais moom day respecté wuñu ko parce que respecté wuñu jabaram te respecté nañ jabaram ndax liñ ko fi jox bari na 6 ans de mariage ba léegi mu ngi ci kër gi bu ñu nanguwul woon du fi dugg du dugg suñu néegu yaay mais nangu nañ mais moom daal nanguwul moom daf ñu fi bëgg a te sama papa day wax ne ñun ñoo ko bëgg a or que c'est pas vrai waaw ma ne yàlla baal sax sax ndax kilifa kenn du ko wax c'est pas mais loolu mënul nekk parce que moom moom këram teg ñu fi di ñu yiir ñu ba yiiraale sëtam yi ñu fi indi kon suñu kilifa ki ku baax la mais soxna si daal nanguwul diviser pour régner loolu la fi doon def léegi si kaw loolu ajjuma bi li indi coow li janqam daala sol yére génn dem fëgg néegam sama jabari papa ne yaa def nii mu ne ko waaw maa def nii ndax samay noon yi ci kër gi moom jànq bi sama doom bu jigéen sama sœur mu ngi féete fële man maa ngi taxaw toog ci buntu kër gi maa ngi dégg wax bi parce que fii dafa am écho mu ne ko ndax samay noon yi ci biir kër gi xale yi reetaan bi xale yi reetaanee jànq bi dafa mer nee na dugg ci biir néeg bi sama soxna papa je sais pas ma leer la lu ma wax dama wax lu ma leerul maanaam pour man daf ko monter parce que toujours daf koy monter jànq bi lu ko neex lay wax ci kër gi boo leen añee doo leen reer ndax suñu papa jox suñu dépense daf ñu koy wax jànq bi waaw boo leen añee doo leen reer bu soobee yàlla xaalis bi moom doo leen ci lekk di ñu ko wax génn di traiter sama petite sœur bi comme de caga je sa pas moi wax lu ko neex ci diggu ëtt bi le même jour vendredi moom jànq bi loolu la fi def xas sama petite sœur bi nga xam ne jëkkëram mi ngi ci kaw ci kër gi la nekk mu naan ko man moom gàcce ngàllaa man sama jëkkër du ma dóor du ma saaga du ma lan di traité sama kii boobu comme quoi que ne jëkkëram géré ko xam nga li ma la wax léegi bi mu defee loolu mu génn continuer osé dem ba si waañ ba fa muy toggee di wax li muy wax sama benn frère bu nekk ci kër gi tudd Malick sama yaay moo ko yar ndax sama yaay ñi fi nekk ñëpp daf leen a yar benn frère la ñu am mais yàlla dafa def euh, malaat mental la yaa ngi dégg léegi loolu sama frère boobu Malick Sagna téye bon bi na ko li nga wax ni noo ko mënee bon bi na ko bu ma téyee siqumaax yow loo may téye ndax man waroo maa jàpp kooku ne ko taxawal boo doon góor ba léegi duma naa la ndax wax yi nga fi wax dama la téye parce que boo demee si amindooy dina la dóor ndax lii nga ko wax amindooy mooy sama caatu yaay bi mu continuer di wax Malick jàpp ko muy xataraayu finalement Malick daf ko mujj bàyyi ne ko comme dama lay téye ngay xataraayu bàyyi naa la ni ko Malick bàyyee rek ami yóotu ko sama papa ñëw taxaw ci digg bi noonu bi ko ami yóotoo di xeex moom sama jabaru papa génne ca néegam ñëw di sot di dóor ami di ko dompat di ko jànq bi ngi la bi mu defee loolu sama doom génn ñëw ne lu tax muy dóor tàntam di sot moom tam da koy dóor. am sa papa. boobu sama papa ngi fi. nan la réagir ci moment yooyu. boobu man sama papa moom mi ngi taxaw jël na jéem na def ba ci jabar ji dugal ko ci néeg bi salon bi. parce que mi ngi doon jëli ay yat di génn ñi bi mu xëcc ko sax ndaw si moo duggaat ci néeg bi dem di jëli bant bant la yor bantu bale bale yu gudd yi nii rocc ko pour ñëwaat bi mu duggee rek di génn ak bant bi def ko delloo taxaw ci ginnaaw bunt bi pour bañ mu ñëw xam nga bi mu bañee mu ñëw après instant boobu euh, ñoom ñi xale yi ñu ngi doon xeex ni ñun ñu leen di atte ñun ñu nekk si ëtt bi ñu leen di atte daal bi ñu leen attee ba pare jànq bi xale yi xotti na njëreem parce que dañ ko doon dóor tànkam dal ci pour de fleur bi jànq bi laa bon mu xolleeku ko bon histoire boobu jeex bi ñu leen attee ba pare. c'était vendredi. c'était le vendredi histoire boobu jeex mais sama jabaru papa jeexalu ko génnul néegam de mais mi ngi si biir néegam si salon bi ci fenêtre bi ci mbedd mi di ñuy yàq lu mel ni xeme di ko yàkk sama petite sœur bi ami ki jàppante woon ak jànq bi di ko xas traité de caga doo jar. dinaa la yàq lu ko neex mu wax ko yàgg na ko ko wax sax moom daal sama caatu yaay bi neexu ko daal sama caatu yaay neexu ko lu ko neex la koy traité lu ko neex la koy wax parce que en général sama papa day wax ne caat yi ñooy gën a fiir ak yu demee noonu pour seen papa bu indee soxna bu ndaw mais ñun dañu accepté yëpp caat bi sax finalement même bu ko neexul woon sax dem na ba nangu ko ndax moom dafa bëgg sama papa voilà léegi daal loolu la ko doxalee ci mbedd mi ñëpp a ngi woon ci mbedd mi di ko dégg ba finalement benn femme bu dëkk fii Euh, euh, doomu Mame Sey kamara doomam bi ñëw taxaw ci femme bi ne ko yow ñi ngay saaga seen ndey seen yaay kenn xamu ko ba mu deewee fii si gër tàppe dañoo defe ne wàlli moo dee yow nga ñëw fi topp yaay yi jàmbur yi di leen saaga lii baaxul moom si boppam mu daal di ne ami boo tontoo kii dinaa la bàyyi ndax man kuy saaga sama yaay du ma wax ak moom mu toog continuer di ko fekk ami si buntu kër gi fii sama boutique bi fi la taxaw mu ko koy wax lu ko neex ami di ko ko jàllawaat naan ko yow lu ma la def yow mënoo ma bàyyi yow bu ma la neexul nga bàyyi ma di ko wax waxu yu bon danga lay dangay cagatu di ñooy jaay 2000 ak yu kenn xamul ami di ko ko delloo ne ko yow xanaa yow yow giwir nga yow xanaa danga ma bëgg a tëddee yow doo ma bàyyi jabaru papaam la de waaye moo ko may lu mu ko waxee loolu parce que moo ko poussé à bout di ko wax yu salte mu di ko ko delloo xool du oom bañ koy bës mais est ce que maman yooyu su bopp seen papa jógoon bu réagir calme coow est ce sama papa buy réagir day féete ci kanamu jabar ji wax dëgg yàlla da koy féete bàyyi leen jàmbur da ngeen ko bëgg a génnee kër gi da ngeen ko génnee yooyu da koy faral di wax benn instant dugg na ci néeg ba ma ne ko papa yow yaa war a wax tata Mati mu bàyyi wax yu ñaaw yu muy wax boo ko calmé ba pare boo génnee mu def papa dafa demoon yi après mu day continuer waat wax wax yu ñaaw yi. te amindooy bu ko waxee wax bu ñaaw daf ko koy delloo parce que xale la amul jëkkër amul doom mu ne ko doo jar doo am jëkkër doo am doom caga nga da ngay ko ay 2000 francs mandikat nga sulaar nga yaa rey sa ndey pourtant sama caatu yaay bi reyul ndeyam loolu kenn du ko def sama yaay yàllaa ko yóbbu kenn yóbbu ko ma nga ci àddina si ndax ku baax la ñeme jox lekk li ñu ñeme moom soxna si bi mu fi duggee bu ñu joxee lekk sax mu ne lekk bi du fi génn ñun loolu la ñu xam locataires yi sax dañ leen di may lekk loolu lañu xam te ba léegi même ni ñu suñu papa joxulee dépense sax locataires yi ñu suñu dépense bopp dañuy yàq tibbal leen ci kaw ndax suñu yaay loolu lañu jàngal waaye ci kaw loolu bi ñu paree ci seen wax boobu ba ñu ba ma dugal ami ci biir ndax ci mbedd mi la ci paranteeram bi ma dugalee ami ci biir na ko ami bàyyil kii du génn day nekk ci néegam di la yàq lim lay yàq te yow da am fond wax nit ki buy wax te du génn da koy bàyyi du génn bu doon génn nga duma ko mais du génn parce que dañu sonn waxuma sax mu duma ko mais ñun ñu duma ko ndax dañu sonn parce que buñ ko bëggoon duma duma nañ ko bu yàgg yàgg yàgg parce que mbedd mi bu ñu fi génnee sax ñu ne dangeen ngeen ñàkk fayda kii tas na seen kër gi da ngeen ko war a dóor te buñ ko doon dóor ñëppay ñëw di ko sot parce que daf ñu xaw a sonal nag dañu muñ ba bëgg a dee ba loolu weesoo du jeex wax du jeex ba ñu calmer suñu sœur waaye le samedi amindoo yi sama caatu yaay bi dafa dem léttu ji yendu fi sax ay 19 heures quelque la fi dugg parce que balaa heure kii bi di jot mu dugg si fi dugg néegam si sama taawu yaay bi fa la toogoon di waxtaan bi mu fa toogee di waxtaan ba heure reer jot parce que ñun presque heure couvre-feu sama buntu boutique bi sax la ñuy toog bu heure kii bi jotee rek ñu fatu bi ñu fatoo mu dem dugg si néegam fële au fond néegam mu ngi si fond bi Aïda Ndiaye la la nekkal moom la dëkkal bi mu fa duggee di waxtaan foofu ami du defu fa dara benn boucan def ko fa arrêté na wax bi bu yàgg ndax moom boo ko waxee benn wax fi nga ko ko waxee foofu la lay tontoo mais pare na ci muy la samedi de bi mu leen tujjee ba ñëw mu ngi si néegam mooy comme li ma wax nii rek ay booru timis dama wooroon sax ma war a ndogu sama papa ñëw sama néeg dama xadi kaay dama la soxla ndax ñi fi mag ñëpp kenn nekku fi dañoo sëyi man léegi parce que man man maa fi nekk xale yi fi nekk yëpp man maa leen di gérer mu ne ma xadi kaay ma wax la ma ñëw toog fekk sax mu ngi ma ne xadi dama soxla wëñ ma ne ko papa wëñ heure bi heure couvre bi jot na de mu ne ma daal dama soxla wëñ bu weex ma ne kii dawal boutique ba gaaw nga jëndal ko wëñ bu weex mu jëndal ko benn pilote wëñ jox ko mu ne xadi waa pardon toogal ma wax la sama papa de ma toog sama néeg mu di ma wax bi ma waxee mu ne ma xadi damaa bëggoon rek ma man ak benn maman bu jóge bi kooku du ay doomam yëpp fii la ñu juddoo làkkat lañu ay soose doomam yi sax des des nañ fii ba léegi ñoo leen yor ci kër gi maman bi dafa jóge Gambie ñëw pour faju si man maa koy gérer di ko yóbbu hôpital muy ñëw maman boobu la woo ne ko si kër gi nga bokk toogal ma waxtaan ak yow yow wax Xadi ñu toog ñuy waxtaan sama papa ne ma Xadi damaa bëgg nga wax ak ami ndax xëy na dina bàyyi ndax ñu ma dinaa wax ak mati ñu bàyyi ah. ami gisuma ko waaye waxal lax moom ma ne ko papa Ami Ndoye bu xësee ba wax ba pare pare na ci wax bi instant bi ko bu ko Mati Fall waxul sama tata bi bu ko waxul dara du ko wax dara waaye papa sama tata day xaar ba nga génn mu continuer wax bi di wax Ami Ndoye rek lu ñaam bu ko defee Ami Ndoye da koy tontu bu bàyyee rek Ami dina bàyyi papa Ami pare na ci wax bi du waxaat noonu meer bi ne ma xadigee da nga wooroon doo jóg nga dogu sama papa ñu ngi leen di woo sax reer baal ma de am papa de maa ngi la téye yow ndogoo koo sax ma ne ko papa loolu amul benn problème naanuma lu tàngali dama ko finalement dama ko bàyyi parce que je lui donne de respect bu ma dama koy wuyu lu tàngali dama ko mujj bàyyi reeruma ko su ñu wootee reer sama papa jóg ne kon xadi dama reeri benn yoon ma jiitlante ak sama papa di génne sama néeg néeg bi ak salle bi dañu dendee parce que sama jabar papa foofu la dëkk moo accaparé salle bi ak néegu biir bi bi ñu génnee tuuti tout juste rek sama papa ñoo fëgg bunt bi kankang jabar ji lay fëgg pour mu tijji ndax moom day tëju rek day tëju rek bu génnee daal peut-être boutique la dem dellu si waat day tëj tëj doomam yi ci biir sama rakk yooyu nga xam ne ñoo bokk bàyyi kenn ki jëloon naa ko di ko fanaanoo sax mais finalement daf ko naw ma bàyyi ko ndax moo jur doomam benn jour rek mu mën a ana ana ana ana mama Rama sama yaay la ko sama papa mu ne ma maman mi ngi nelaw bon xam papa ne ma xaaral ñu indi ko doon mu ne ko déedéet bàyyi ko foofu boo ko yëkkatee day yeewu ma xam ne bëggatul mu fanaan si man ma bàyyi ko depuis jour boobu. comme ça sama bi mu fëggee mu ubbil ko sama papa dugg sama doom bu jigéen bi reer bi ñu togg mooy ndey faatu dafa lakk sa d'ailleurs mu tibb si bool mu ne maam sa reer baa ngi nii dañ ko yàkkal bien vrai que duñu jox dépense ñu togg suñu togg bopp jabaram di togg suñu mais am na yoo xam ne plat yoo xam ne bu ko toggee dañ koy bëgg yàkkal ñu yàkkal ko. sama doom bu jigéen bi moo ko yóbbu muy ndey faatu dugg si biir madamam ne ko ndey tegal fii reer bi ndey dugg teg ko ci taabal bi maa ngi taxaw ci buntu néeg bi nii di xaal pour ñu reer mu ne ndey merci beaucoup loolu la sama jabaru papa bi wax de ndey faatu génn ñëw taxaw ci reerukaay bi sama beneen sœur bi kooku sam dafa lakk moom tamit mu ngi sëgg ci beneen deuxième plat xale yi dañ takk plaatu mag ak plaatu xale mu sëgg foofu di sandisol kenn ci sama frère yi nekk fii si ñi sama yaay yar fi mu sëgg ami si boppam ami ami ki mu lakk noonu ba mu sonn ki nekk réanimation foofu la njëkkoon toog ne foofu lay toog sama doom bi na ko déedéet ami doo toog foofu ñëwal si plateau mag yi mu jóg di dem ci plateau mag yi ni mu taxawee wane ginnaaw instant boobu rek sama jabar papa man gis naa ne ubbi na bunt bi yëndu xam naa kon ami la doon xaar pour mu ñëw toog di taxaw pour reer naka la ubbi rek gis ami delluwaat yenn ji kasarolu ndox la la téye bu tàng bu bax boo xam ne ndekete dafa ànd ak dëwliñ man bi mu ko nee paf ak bi ma summee ami ak yuuxu yi benn la maa ngi taxaw dama doon lox te ami mi ngi sol chemise longue manche presque soie mu lakk ko yàq yaramam bi te mu ngi léttu léttu yi bees taq bopp bi yëpp dafa lakk yaram bi yëpp dafa lakk lii dafa ñaaw ñun jiwuñu ko loolu ñun xamuñu loolu sama doom bu jigéen bi lakk na parce que dafa doon protéger doomam sama beneen petite sœur bi lakk na tout ça ndax ñoom ñëpp ñu ngi woon ci ndab li. moment loolu amee paa bi nan la réagir. sama papa dafa jaxasoo parce que mi ngi génn si néegam encore naan lu xew ami lan la lu ami def ma ne ko papa dalal. ami deful dara Mbati Fall moo jël ndox baxal ko tuur ko ami sama papa dafa daanu nii man maa ko téye benn loxo sama doom bu jigéen bi lakk nii moom boobu xamul sax ndax lakk na ndax kërën-kërën gi mu ngi ko téye man ak moom ñu may ko loxo mu jóg am papa di bërti bërti di këti këti ñii di daanu fii ñii di yuuxu fii sama doom bu góor bi nga xam ne daawul dugg si histoire mer na xool na tante ji yaram bi nu mu mel ñu ne dinañ rey Mati Fall na génn fekk Mati sama benn doomu bàjjan bu fi nekk Chérif moo bës bunt bi Mati dafa lakk ba pare rek daw dellu si biir te bi mu sottee ndox mi nee na ñaw dafa sotti ndox bi rek ne ñaw dugal fattu si biir sama doomu bàjjen boobu ma lay wax moo bës bunt bi pour mu tëj ko pour mu caabi parce que nee na moom boobu gisagul sax ne ami ami ndooy la lakk ba mu ñor nee na pour moom kooku dafa tiit ndax mi ngi dëkk si ginnaaw dafa defe ne woon histoire la loolu mu ñëw bës bunt bi mu tëj mais moom moomu ko tëjal bunt bi bi mu wëlbati koo gis am yaramam bi lakk dafa daanu yasul si suuf fee boobu moo fi am la samedi ba mu fi tëjoon nit ñi di yuuxu ko waa koñ bi yëpp ñëw te couvre-feu bi mi ngi fi ñëpp ñëw daw si ñoom ñu fi ñëw ñëpp dañ ne day na ubbi bunt bi ndax nit ñi ñen dañu sonn ndax li mu leen def xamu leen lii ah, ñun daal sonn nañ te Matifal sonaloon nañu laay wax sax parce que. ana Matifal. Matifal ak policiers yi ñoo ko fi jël si. parce que locataire bi dëkk ci kaw moo jël otoom génn ñu ne ko foo jëm ñi ñi nekk si mbedd mi euh, ñuy policier yi ne ko foo jëm mu ne damay dem police ndax dafa am ku soode fii xale yi mu ñu ne ko kon demal mu dem woow ji police ñeneen ñi si des ñëpp ñëw policiers yi ñëw xaw ma sax fu ñu jógee wax dëgg yàlla ñu ñëw rang nii ah il pare seen chef sax dafa ñëwaale ñu ñëw rang ne na génn mais pour mu génne sa tout un problème génn man dégg naa sax si mbedd mi ñu naan dafa nekk si biir néegam si fenêtre bi naan woy ku may dimbali ku may dimbali xaw a je sais pas moi. kon policier nun def ba jot ci moom. après sama papa moom bi mu tiitee xam nga dafa génn di laajte ndax si néegu biiram la génnee sama papa mi ngi woon ci biti moom moo ne ko Mati ouvre la porte parce que c'est la police mu yéex a ubbi nag Mati je dis que tu la porte c'est la police mu ubbi. parce que comme d'habitude moom bu jógee fenn sax bu ñëwee day taxaw fëgg pour mu ubbil ko parce que femme bi day tëju rek day tëju rek. léegi anam actuellement moom. actuellement bañ ko yóbboo quatrième ba léegi wax dëgg yàlla man sama papa laa gisoon mu dem ñu yóbbaale ko woon le même jour parce que moo xam naa moom moo si topp sax parce que soxnaam la bi mu demee ay 4 heures du matin la fi yëg si ma sentir ne ñëw na ma jóg bi ma jógee euh, euh, lu ma njëkk def parce que dama ko dégg muy ok. di yuqal di yuqal yuqal bu metti daan na ko faral di dal yàgg na mais su ma yaay laa daan gis day jël kuddu lem defal ko ci euh, vinaigre un peu ak ndox bu cedd nii yëngal ko jox ko mu naan wala souvent je sais pas xaw ma nen la daan jël bu kii bu bu ñorul jël xaw ma jaune d'œuf bi je sais jox ko daal ak yooyu ma ma fàttaliku loolu ma defaral ko ko bien vrai que soxnaam def na samay sœur lu metti mais sama kilifa la moo ma jur sama papa sama xarit la mu soloon doon. bi loolu amee lépp ba paa bi ñëw ci fajag yi nan lan la réaction am lan la. bi ma ko joxee mu naan ba pare nag lem bi ak yooyu ba pare ba xëxët jooy daal di soufflé ne ma mais ami mati nee na ami moo ko fekk si néeg bi ami dafa ko bëggoon génne kër gi comme ça yuuxu ma ne ko papa non non papa dalal rek dalal dalal fi mu nekk nii mënuma la wax dara mais dalal rek yii yëpp c'est la le moment dalal rek mais après bi mu dalee ba dem comme nit mel ni comme euh, noonu lu mel ni comme démba dafa demande ma ne ko papa man maa fekke fee bi yow papa da wax ne danga nekkoon ci biti nekkoo ci biti mu ne ci mbedd mi la nekkoon xam tiitaange moo ko jàpp moo tax mu ne ci mbedd mi la nekkoon ma ne ko papa nekkoo ci mbedd mi de yow man ak yow ñoo doon waxtaan ñoo pare ba nga ne ma maa fi baal ma ndax sa koor gi mais yaa ngi dugg ci biir. ma ne ko dugg ci biir néeg bi bi nga duggee ci biir néeg bi ba pare la Mati Fall préparé li mu doon def dafa baxal ndoxam préparé ko noonu la demee. demande bi lan la paa bi. bi mu demandé mooy que ni yow xadi yow laa mën a laaj fee euh, euh, bi nu mu demee nii ma expliqué ko comme li ma leen wax nii commencement bi reer bi génn taxaw ci buntu néeg bi di tout maa ngi koy gis toogooguñu sax suñu reer bi finalement reeruñu ko munuñu ko reer mënuñu ko reer ah wax dëgg yàlla man lébu mu mel ni man bëgg ganaar ba bëgg dee. <laughs> mais ak coow li ci am lépp nga yaakaar coow li bu ko yoon gënee topp est-ce que du dem ba paa bi xaw ci am problème. bu gënee continuer nii ma bon man bëgguma nag wax dëgg yàlla suma papa am problème de souhaité wu ma ko de man j'aime bien moom papa man sama papa ba mu amulee jabar sax man maa ko daan wax papa trois ans bi sama yaay duddoog léegi da nga war a takk soxna de papa. parce que man may jóg nii di la yéendo damay ñëw ba sa buntu nekk jël sama nopp teg ko si buntu bi di xool ndax yaa ngi si jàmm papa da war a takk soxna lay wéttali comme ça sama xarit la musa doon damay dem boulangerie dama koy jëndalit ndekeem bu mu amagulee jabar bi sama yaay doddoo maa koy toppatoo may tàngal ndoxam rythme boobu lañ ma indilaat te bëgguma ko li ko waral mooy soxna si li mu def bu ma déggaloon li ma daan waxtaanee moom bëgg mu juboo xale yi ñu nekk benn man mii sax dama daan ànd ak moom buy dem xew ma gunge gunge gunge ko si xew bi sama jabaru papa sama papa bu daan wax sax bu koy joxaat ma ko ne papa dolli ko papa yaa fi indi xale bu ndaw bi ngénteem bi mu njëkkee am doom musul na sëy mais mu amu fa doom xale la elle est née de 74 ans sama papa mag la mais moom moo taamu loolu li mu bëgg ñu bëggale ko ko. mais ak li ko police jël si nii ngeen yaakaar est-ce que fee dina nekk lu ñuy mën a maslaa négocier ko wala parce que ak li ko police jël si kër gi nii. maslaa fii paa mu ngi ko bëgg nag wax dëgg yàlla bëgg na ko mu ngi koy sabablu moom lay woote nii sànq ba tey mais du xaw a yomb de du yomb de parce que sunu sœur dafa blessé de mu ngi si man xaw ma naka laa ko mën a waxante métti na yaramam bi yëpp lakk na kanam gi bopp bi di tout ça me fait loolu moom wax dëgg yàlla du yomb de xanaa rek parce que même ñun bu ñu bàyyi woon sax yoon da ciy teg loxoom de xanaa mu oyof. waaye yoon daf ci teg loxoom de te bàyyi bi du yomb parce que sama sœur yi dañu sonn dañu yàgg ñëw arrangé dañu yàgg wax a sam papa mais boo ko waxee mu ne bàyyi leen sama soxna ah j'aime ma fem am nga moom jikkoy tubaab la yor yooyu lay wax. coow li am lépp sax boo xam ne j'aime ma femme. j'aime bi muy toog di waxtaan ak man nee na ma mais waxal ami bu mu ko waxati mënoo togg bu sombee sax ma naan waaw moo ma gënal et puis sama ma bon laa dëgg la moo tooñ xam naa ne moo tooñ maa fii. et lii ni ngeen réagir sax baax na si moom bu ñëwaatee dina normal mais nag fii laa koy waxee ah dafa sàcc wax ma nag maa ngi koy wax sax si kii ak direct bi ah dafa sàcc wax ma vraiment parce que moom bëgg na doom jabar ko yóbbu si loo xam ne ça ne va ji moo waroon doxalee neneen ñu uuf ko gis nga biñ koy ngénte sama papa dafa ko jox xaalis sax ma ne ko papa dolli ko dañuy togg laax dañuy togg añ dañuy togg reer am na sama benn nijaay bu ma meree ne ma lu tax ngay wax loolu sa yaay dëddu nga nga fiy wax yooyu ma ne ko non xale la mi ngi doog am doom. mais lakk bi ñaata nit ñoo sa lakk. ñett. kenn ki nga mi ngi réanimation. oui ah, mi ngi réanimation moom la sible moom la moo doon moom moom la doon waxanteel di sànnante baat et pourtant ami jàppante wula woon sax bon bi yàllaa ko ci boole parce que bon bi moo ko dugal si wax bi di ko xas. de caga de quoi de mi comme comme sama jabaru pap bi lu mu koy xase rek loolu ko bon bi xase parce que si moom la ko déggee c'est pas vrai ça. du ami moo rey sama yaay yàlla moo ñëw sama yaay méttitu bopp moo ko yóbbu te bi mu fi jógee def c'est un jour de vendredi rek saan mu ngi toog jox ñu ñu lekk ba suur ci guddi gi dafa tàmm dagg ay mango di jox nit ñi ci mbedd jox ñu ñu lekk ba suur ci guddi gi sama yaay samedi matin de très bonne heure sama papa ñëw fëgg ma ne ma sa yaay ak may bëgg a jaaxal ndeysaan ma ñëw mu ne ma xadi bësal ma sama bopp sama bopp bu day metti may bës si ginnaaw gi nii di ko bësal ba biñ ko ba ma koy génnee ci néeg bi boobu la fi gëj a duggee jërëjëf am internet ba tey ma leen di fàttali kii may waxal sœur la ci kër gi doom la ci paa bi euh, euh, li ma naan nag ay la mais daal ñun nag duñ àtte damay bàyyi yéen ngeen def seen analyse liberté wa daal mooy doy na waar doy na waar euh, ñu ngi ñaan nag kii ci gaañu nga xam ne moo ci ay blessures yu métti yàlla fëgg boppam yëkkati ko parce que ku nekk réanimation sonn nga ñu ngi ñaan yàlla ay bi yam fi loolu daal lan la jël si loon tey fii ci Gueule Tapée muy lu doy waar coow la bu ne ci benn kër famille tante ji xëpp doomu paa ndox mu tàng bu nu baxal ba kenn ki nekk réanimation muy lu doy waar yeneen ñaar ñu ngi tane ñu ngi ñaan dal yàlla def ci jàmm mais lii la nañ ci loon tey fii jërëjëf.